coupe du monde basketball U19 bi nag Sénégal tey doon nañu jàkkaarloog ñi nga xamante ne bi ñoo di waa États-Unis d'Amérique match ba nag metti woon na lool ci ñaari boor yëpp ndaxte sax score ba nga xamee ni bi moom la Amérique gagné ñi nga xamante ni bi ñoo di waa Sénégal soriwul benn yoon Sénégal mu ngi amoon lu toll ci 58 euh, points Amérique am 88 points noonee nag gagné, ñu gañee ñi nga xamante ni bi euh, ñoom ñoo di euh, Sénégal tey ji ci match quart de finale bi nga xamante ni bi doon nañu ko jouer mu nekkoon nak digënté Sénégal ak États-Unis d'Amérique Coupe du monde U19